jërëjëf fidèle téléspectateur u Equivox TV yéen a ngi seen biir euh, journal de l'arène may am mbégte saa su ne di ko présenté euh, ànd ceeg euh, sama càmmiñ Babacar Babacar nuyu naa la ziar naa la. maa ngi lay fay soxna Oulimata Seck. sama Babacar Babacar supporter lu Real. waaw loolu la yàlla dogal loolu daa yàgg <laughs> ndax xam naa ne ku xam mag malamaan xam al ñoom El Guerra mm-hmm. Roberto Carlos. ah mm. defe naa ne loolu yàgg na bu xale bu tuuti laa di supporter Real ba tey ah. wax dëgg yàlla mooy sama club de moom loolu la suñu borom dogal heureusement ba ngeen ba ngeen ak 2 uh-huh. Real gagné na moom du information Real perte na mooy information <laughs> ay ñu dem seetaani suñu revue des titres te ñëwaat asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 17 mars 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay yi suñu làmb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di suñu làmb nag moom tey xëtam mu njëkk maanaam ña ca xëy fes bari nañu bokk na ci Balla Gaye numéro 2 Modou Lo Moussa Ndoye Sa Thiès Pakala Forza ba ci Gris Bordeaux ak Babou Ngom ñii ñépp tey boo xoolee xët u njëkku yëglikaay bi di suñu làmb ñu nga fa bu dee Balla Gaye numéro de lan moom lenn lay wax ka muy waxal kenn la muy Bombardier ma mu seqal bés jàppal Balla nee na ko daal yow de li am ba des mooy su bëggee dégg dëgg dinaa la ba pare door laa dinaa ko duma daan ko de lii la Balla xam na lu mel ni ki noonu loolu mooy waxi gi nga xam ne nii moom moo di Balla Gaye numéro 2 yemu ca Balla na tamit ci fan yu néew dana takk ay baabam euh, wala boog ay bagaasam ay kàggoom ak bagaasam wutale fa nga xam ne moo di INSEPS ba nekk ca Paris fa nga xam ne combat bu mujj fa la ko préparé woon Balla daal nee na foofu ci kattanu yàlla moom lu yàggatul keneen koo xam ne moom fi nekk nii moom waxul adversaire am ne ko dinaa la duma dinaa la daan waaye daal la mu def mooy yàkkamtee bëre ak moom muy Modou Lo le roi des arènes na fi mu nekk nii daal bëre dong dong la bëgg nag nag ndax nee na li am ba des mooy libéré wu daal la ñu bëgg maanaam bëre libre mën a nekk ci leneen loolu may xëy ki nga xam ne nii moom moo di Modou ba tey tamit mu ngay am daal yaakaar ne combat ba des na ko ci saison bii nga xam ne moom la ñu ne muy digganteem ak Ama Baldé ñii moom bu ñu yeboo xam ne seeni combat taxaw taxaw na te itam daal ku doon xaar ne ñoom du ñu bëre boo yeewoo nga jàpp ne moom ñu bëre ndax lekk nañu avance te olof ne na ku lekk avance tëdd du muy diggante Sa Thiès Moussa Ndoye combat ba taxaw na Gaston Mbengue moo fa jaar yëglikaay bi di suñu làmb mu xëy tey wax nu ko Gaston yemu ca di am na beneen combat boo xam ne tamit taxawal na ko mu di ab revanche ci diggante Forza bu Faas ma nga xam ne paka laa ca Thiès combat ba tamit Gaston Mbengue tëggaat na la nga xam ne nii moom moo di revanche ba yëglikaay bi di sunu lamb moo xëy ñëw tey di nu wax lu mel ni ki noonu ba tey bu nu continuer ak yëglikaay bi di suñu lamb ka nga xam ne nag moom moo jiite mbër yooyu nga xam ne dañuy takk ngemb di bëree te fan yi nu génn ku ne déggoon bëriwoon na seen coow ak le ministre de la justice Moussa Malick Sall mu am loo xam ne daal daf leen koo tuumaaloon ci ñu wàccoon ci mbedd di ñaxtu ak a sànni ay xeer mu jàppoon ne daal waa làmb ji la mu mel nekki nag Malick moom waxam jooja mu waxoon li olof naan tooñ lu mu rëy rëy jéggal ma da ko ëpp doole loolu la def démb daal dalal na Gris Bordeaux ma nga xam ne moo jiite mbër ya ak ka nga xam ne nii moom moo di Balla Gaye numéro de Modou Lo phrase ya ak yeneen mbër yoo xam ne ñu nga ca groupe ba waaye sunu papa Xaadim Sàmb mu nga ñooña ñoo dirigé woon ndaje ma ànd ak mbër dem ministre ba nag moom ca bureau nee na leen baal leen ma maa juum la ma wax waruma koo wax te nit nag day juum loolu la ka nga xam ne nii moom la Malick Sall wax ne nga xam ne moom moo di ñoom Gris Bordeaux ak seen kuréel ga jàpp na ne daal tooñ na leen tooñ ñu leer nañ waaye tamit en tant que ministre la justice di kilifa mu ngi leen di jéggul moo tax Gris Bordeaux tamit tontu na ko xamal na ko ne daal li am ba des moom soo bëggee dégg dëgg jéggal nañ la te yàlla tax ndax nit ku ne day juum ndax nun ñii sax danay juum moo tax pelant ba nga xam ne moom lañ décidé woon yóbbu la ci yoon dañ koy dindi ba mu set wecc loolu waxee nga xam ne moom moo di Gris Bordeaux la ma nga xam ne moo jiite mbëri mu mel ne ki nag mbir mooma moom su ma nee nooy bayees dox ko daa mel ni daa am ñoo xam ne moom fu ñu fekk safara sotti ca la nga xam ne moo dim ndox muy bekaay mbay ak xaadim sàmb daa mel ni mbir mooma ñoo ko yombaloon nga xam ne amoon na démb keneen koo xam ne nii moom dañ koo gëj a gis ci làmb ji mu nekk tambour masooru làmb ji wala daan ci tëgg lu am am solo muy baabu ngom ma nga xam ne mu nga dëkk ca gay njaay baabu nag moom tey moom la yëglikaay bi xëy dalal Abdoulaye Diagne ko dalal mu mel nekki baabu ngar daaju na fa wax fa lu ama am solo ñëw na ci la nga xam ne moo ko tax nit ñi gisatuñ ko ci làmb ji feebar boo xam ne moo ko tëre tëraloon lu yàgg a yàgg nee na loolu bokkoon na ci li tax mu deltu ginnaaw arrière nee na loolu daal ci la nekkoon waaye fi mu nekk nii mu ngi santi boromam ndax nag tare na bu baax a baax a baax mu ngi yëg ak wér gu baax a baax baax ñëw na tamit te la nga xam ne nii moo di arène waaye ñëw na ci waykat yi ak Khady Diouf ma nga xam ne moo fi nekkoon daan way làmb daan ku se seq ak ka nga xam ne moo di maye ndeb nee na Khady Diouf ba mu génnee àddina nit ñëpp la ñu jàppoon daal nee na ki koy remplacer kenn képp lay doon muy ki nga xam ne ni moom moo di Fatou Gaye waaye yëglikaay bi ba tey continuer di dal ak moom wala boog di waxtaan ak moom ñëw na ca waykat ya nga xam ne ni ñoom tey jàpp na ne relève bu Khady nañ ko ke njëkk jàpp na moom Babou Ngom ne moo di Faye Mbodj Mbayang Loum Ndeye Fatou Adama Jali Khady Ngom ak nga xam ne moo di Fatou Ndiaye ba ci Baye Fall ak Aada Fay jàpp na ne ñii daal la nga xam ne nii moo fi desewoon Xadi Juuf mu waroon koo def ñoom ñooñu ñu ngi koy continuer di ko def ki nga xam ne nii moom li mu war a def yëglikaay bi di record xëy na tey ñëw ci ak ku cay gunge ngir mu def ko muy ka nga xam ne moo di Bombardier ak combat ba nga xam ne moom la mal mu mel ne kii nag moom loola ca wàllum MMA la Bombardier daal coach sam ba nga xam ne moo ko yore di ab tubaab di Luc Etienne daal la mu xëy xamle nee na kii di polo Podolski day wala polonais bii day na ko leer ne ba muy bëree ba tey wala ba muy laalante ci lu jëm ci wàllum MMA bi fii nu koy waxe masta am adversaire bu mel ni Bombardier moo tax daal ka nga xam ne nii moo di Luc Etienne moom la mu xamel Podolski daal nee na ko li am ba daal jàppal ne adversaire day am nga ko te itam fa nga ciy génne dana ma jaaxal loolu mooy ay waxam ñoo xam ne ni moom seeni mbir leer na léegi nañ muy Lac de numéro 2 ak ka nga xam ne nii moom moo di Eumeu seen yëglikaay bi di record xamal nañu ne combat ba daal régularisé nañu ko démb fa nga xam moo di ca CNC ba kon leen jàppale na date ba moom le 4 avril mbëri yi moom foo jaar daanu laale kon nag li ñuy ñaan daal mooy kon yàlla nañ ko fekkee te tal ko ndax nag lu moo mën a doon lu ne boo ko fekkee tal ga da cay baax tal nag li koy waral mooy jàmm ak wér yàlla nañ ko yàlla defal waaye ministre de la justice tamit Malick Sall bu doon daa tooñ tooñ yu rëy itam def na lu rëy rëy rëy ndax nag xulle nit boo tooñee nangu ne damaa tooñ jéggulu ña nga tooñ ci seen kanam te nga de kilifa loolu defe naa boo nekku nit bu normal wala koy xalaat doo ko def wala nga nekku yàlla bëgg a dimbali kon ministre de la justice gars yi jéggal nañu la loolu la ñu wax voilà mu doonoon suñu revue des titres ma doon ci ànd ak euh, Babacar euh, comme ça su ne dañuy dooree euh, suñu quotidien bi di suñu làmb Babacar tey nag suñu làmb xëyee ci Balla Gaye 2 il met en garde Bombardier dinaa ko duma daan ko Babacar lii moom doy na waar de. ah waaw doyul waar ci làmb de boo xoolee waaw xam nga lu tax. Mhm. man la doyul waar ci làmb. Mhm. mbërëg morom ma yàgg nañoo tëkkoonti bu ñu jëmee ci bés te dañoo jëm ci bés. bés boo xam ne enjeu bi dafa bëri ndax enjeu bi première fois bokk na si dañu bëri woon Balla Bombardier daan ko nangu roi des arènes bi ci moom. maanaam Balla bi mu nekkee roi des arènes. roi des arènes am Bombardier ko foqati ci moom. yaa ngi dégg après par la suite ay wax topp ci. ay wax topp ci Balla wéru kon Balla wéru kon Balla wéru kon wax ji di dem di dem. ah ba Bombardier benn suur ma laaj ko mu ne moom daan na ko dégg mais gëmu ko woon mais bi mu bi bi mu déggee Balla waxal ko boppam la gëm ni kon kon moom daal dafa jàpp ne bi mu koy daan wéru kon kon bi yoon buy ñëw ne wér yaa ngi dégg uhuh. ñu leen di ñaanal ñoom ñëpp wér ñëpp wér ñu fekke ko Balla itam fi nekk nii dafa jàpp ne li des ci carrière uhuh. amatu ci lu mu ciy may kenn ko moom mën a doon mhm. moo tax mu xëy waxee nii ne dinaa ko duma dinaa ko daan te Balla yàgg na ci mbër yàgg naa wax mbër ne la mhm. une minute laa la may wala deux minutes wala dinaa la duma dinaa la daan loolu yàgg na ci moom tey wax dëgg yàlla mbër la moo xam ne ak loo ko contre contre contre xam nga ne mhm. saa bu arbitre soufflé moom moom day ñëw def si li mu bëgg a def waaye da ko séq ak koo xam ne tamit li may wax rek ràññatlewul jànjag joor muy bombar dëgg la waaw euh, bu ñu bojj boxam <laughs> <laughs> dëgg la Babacar mu mel ni Modou Lo itam ah, moom it euh, wax na waxam daal ci fii di suñu làmb mhm. ne euh, tey ji on veut lutter pour nu libérer mu mel ni euh, loolu day soxal combat Modou Lo contre Ama Baldé waa dafa bëgg a bëri ah pour mhm. parce que tamit xam nga nga nekk lekk benn avance lu bëgg a ñaari at mhm. dafay metti te boobu ba tey xamuloo lan la ak du maanaam kañ ngay bëre ah li ci li li ko gënoon a indi problème bi nag bokkoon na si li tax combat bi amul bu njëkk mm. mooy bi ko promoteur bi taxawalee muy lig ñu koy nuyu di ko jaar mm. yàlla dafa defoon mu am ay ndok ndok mm-hmm. defe naa ne yàlla dimbaliwaat ñu tamit ba mu mm-hmm. génn ci ndok ndok yooya mm-hmm. dellusiwaat si njabootam macha allah waaye bi loolu amee tamit après par la suite coronavirus dafa ñëw tax ñu ajoon làmb ji loolu bokkoon na ci ñaari cause yi nga xam ne tax na combat bi gën a tardé waaye actuellement comme làmb ji macha allah delluwaat siwaat na ko Euh, yaakaare woon wala am na lu ñu ci delloo si bokk bu ñu 100 pour cent yi ñëwul tamit au moins 80 pour cent yi ñëw na kon xëy na yàlla dina def Luc Nicolaï dina fexe ci saison bi nga xam ne ci lañ nekk mu organiser Modou Lô ak Ama Baldé daa nekk combat boo xam ne moom tam dafa bokk ci komba yi nga xam ne mhm. demande sociale la mhm. waaw combat Modou Lô Ama Baldé ñu ngi di ñaanal ñu bëree ko ren libéré wu que le meilleur kii di Moussa Ndoye ak Sa Thiès itam mu mel ni seen seen bis taxaw na taxawal nañ ko kii di mhm. Gaston Mbengue euh, officialisé na euh, diggante bi maanaam combat bi. leeral na ko taxawal na ko taxawal nañ ko waaw. ci père mu mhm. koy nuyu di ko ziar père gas xam nga moom itam moom maanaam moom rek symbole la si làmb parce que tamit li tax loolu mooy def cee yàgg macha allah. Mhm. xam nga 92 ba tey. Mhm. du ay caaxaan. nga nekk ci benn milieu. vraiment di ca yëngutu di ca def lu am am solo Gaston Mbengue defe naa kon tey ah, bu defee lii duñ ne gulee temps du lu ñu bett lu ñu xam la ci moom mooy li ma wax ci Real rek. Mhm. Gaston taxawal na combat du information. taxawal itam bi bosu euh, Pakala ak Forza. waaw gis nga ñu ay combat yu doy waar la. taxawal xam nga Garga Mbossé Moussa <laughs> Ndoye mii Moussa Ndoye mii yàgg na di pis Sa Thiès. Mhm. Sa Thiès tam yàgg mel ni koo xam ne da koy wan ne du ma sa morom. waaye daa mel ni nag Moussa Ndoye la mu bëggoon am na ko Sa Thiès itam dafa mel ni kon ka mu doon xalaata ne da koo xaw a raw ah tey daje am na jot na ci <laughs> waaw non jot na ci bee nag moom bii pakala forza bi bëri woon nañ ca ca Thiès uh-huh. lig Nicolas fa jaaroon yaakaar naa ne mu uh-huh. ne woon combat bu méttee méttee uh-huh. métti ke da ci xeex ak bëri waaye pakala moo amoon ndam kon tey Gaston tamit foofu revanche la fi indi ñuy ñaan yàlla rek amiin ak ah, combat yëpp ñu fekke ko te tal ko parce que tamit li yëpp combat yu neex la yuy dundal làmb la nit ñi nag ñu doon wax Garga Mbossé Moussa Garga Mbossé Sa Thiès mais heureusement xaar ah yàlla lii la mujjee indi parce que tamit wërsëgu jaam yàlla. dëgg la Babacar ay ca kon ah, dañuy daal di ah, xuus rek ci mhm. suñu suñu làmb ba tey mhm. ah, cette fois si nag kii di Gris Bordeaux ak ñoom Balla ak euh, Eumeu Sène ak ñoom Modou dañoo def daal seen association boo xam ne Gris doo ko jiite sax d'ailleurs donc dem seeti kii nga xamante ni euh, mooy ministre euh, du sport umpale wuñ ministre de la justice autant pour moi umpale mm, wuñ ne ci revendication yi manifestation yi Diallo Babacar mm. dafa amoon ay tuuma yu mu jëloon teg ko ci deru mbër yi ñu mm. demoon nag seeti ji ko mu baalu leen àq. waaw parce que loolu defe naa ne mooy Sénégal. Mhm. xam nga Sénégal. Mhm. tax dañoo nekk si réew moo xam ne mën nañoo xuloo nii xol yi jóg waaye waaye mënuñoo xastante. Mhm. parce que xam nga lu tax mbokk gi la ñun ñëpp ñoo bokk sénégalais yi boo ko xoolee ba si biir. yaa ngi dégg te yow mii sant Seck man ma sant joom boo demee fu ma dëkk si ak yaay. ñi sant Seck ñooy samay doom baay. ak ñi sant Ndour. dëgg la yaa ngi kon Sénégal noonu la mel. Malick nag kilifa la goo xam ne ministre la justice la ñu dénk ko yoon xam nga yoon duy caaxaan. Mhm. koo xam ne tey maanaam buñ ma tooñee wala ma tooñ ci yoon fa nuy dem ni ñuy àttee mm, loolu lañ ko dénk mu yore ko defe naa kon kooku du ndaw ci am réew. te mhm. itam dénkuñu ko bànqaas bu tuuti. kon xay na su demee bay wax. Mhm. ah war nañoo war na xool bu baax a baax jàngat la mu war a génne. waaye nag. dafa fekk ne yàlla moo bind nit ci matadi ak ndombo yoo mën a yor da ngay juum ba siiw yaa ngi dégg loolu moo ko arrivé waaye tamit li may naw ci jëfam tey mooy li mu nangu ne tooñ na ñamu tooñoon mu dalal leen jéggalu leen ku rëy du def wax dëgg yàlla bu réyoon du ko def ndax nag tooñ li muy rëy baal ma du ko ëpp doole te maa la koy wax ulimata di ko wax ku ñuy seetaan gis nga nit bokk na ci liñ lay nawe nga juum nangu ne da ngaa juum nga tooñ jéggalu kon Malick Sall defe naa ne loolu Gris Bordeaux wax ne retiré nañ seen plainte mhm. defe naa lu am am solo la ñu ñaan yàlla rek Sénégal jàmm continuer dox ci mais tamit di ci félicité ñi nga xam ne ni ñoom ñooy suñu ay papa yoo xam ne tamit ay baax lañ ay mhm. royukaay mhm. mu suñu papa Khadim Samb suñu papa Bekaay parce que jotaay boobu su amee ñoom bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo ko facilité maanaam ñoo ko yombal parce que ñoom tamit noonu lañ toll ci réew mi et puis la ñu war a taxawee si réew dëgg la en tout cas mu doon lu ñuy rafetlu bu baax a baax a baax mm-hmm. euh, dañuy daal di rek euh, jeexal suñu làmb ci kii di baabu ngoom muy mm-hmm. euh, tambour major bu mag a mag a mag mm-hmm. moom nag mu ngi nii nee na une maladie m'avait fait perdre perdre le recul maanaam dafa am lu ko téye woon waaye fu mu ne nii maanaam dafa mel ni mi ngi sant yàlla waaw feebar dafa wér di woon waaw moom gay njaay la dëkk dafa naa ne làmb ku ne ku ku ku ku ku wax làmb sa xel dina dem ci Babou Ngom parce que làmb daa bëri ku ci ne loo ci marqué sa empreinte moom ci côté tëgg da cee marqué empreinte am dafa naa ne ñu toog ay at gisuñu ko ay ñi daan xalaat ci lu mu ne nangam sangam ndeke te boobu dafa tëdd feebar kon nag yàlla def na feebaroon na boo am na tam yàlla na wér pelek ba dellu soit ci milieu bi parce que kilifa la gu ñu soxla et puis tamit royukaay la ci li muy def ndax tey bari nañu yor ay orchestre di tëgg yaa ngi dégg wala ay groupe di tëgg mhm. moom mii ci keppaaram lañ jaar moo leen formé ñoom ñoom Maodo Faye ñoom moor Ngom bari nañ su ma ko doon lim du ñu jeex ba ci doomam ji nga xam ne actuellement mooy tëgg di Momo Ngom kon doon daal père Babou yàlla na dellusiwaat ci milieu bi bu baax a baax. amiin yaa rabbi ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax père. Mhm. Euh, dañuy daal di donc euh, jeexal suñu làmb daal di tàmbali. Mhm. fii nga xam ni euh, mooy le record. Mhm. le record nag tey Babacar kii di coach bombardier. noonu la waaw Luc Etienne. moom daal xamale na ni Pudzianowski n'a jamais eu un adversaire comme Bombardier daa mel ni waa ji wóolu na Bombardier xam na fu mu ko teg. <laughs> ah waaw xam nga liggéey ak ligue boobu français la dafa yàgg ak Bombardier dañu yàgg liggéey. Mhm. loolu moom euh, durant carrière Bombardier li liñ ci liggéeyul ñoom ñaar bëriwul bëri bëri na ci bëri loo xam ne ñoo ko seq liggéey ko mhm. kon defe naa su waxee si moom xam na ki muy wax jàpp na ne kon ah pour Janissky boobu. am na adversaire boo xam ne musu ko am muy Bombardier mhm. waaw te itam defe naa ne pour Sianski ah, man day xawma ko bu baax waaye Bombardier moom xam naa ko xam naa ne moom mhm. am na adversaire de mbaa du dalu ci ah new xawma dina ci dalam du ci dal maa ngi ñaan nag mu bañ cee dal wala bu na ko na na ko yëngu ci kawam ba mu yëg ne fi mu dal baaxul yal na ko Bombardier gañe amiin waaye ñëpp loo xam ne la sport la te mhm. itam moom fa mu dëkk wulu nañ ko ndax lu mu fa wane kon itam adversaire de taille la pour Bombardier dëgg la aywa mu mel ni Babacar donc euh, bu ëmma ak Lac 2 tamit c'est officiel pour le 4 avril. Mhm. Mhm. waaw boobu leer na parce que démb ci mardi ji lañ ko régulariser fa nga xam ne mooy CNG. Mhm. xam nga combat bu ñu nee taxaw na dañ koy taxawal. ci bureau bi. yaa ngi dégg ci ay waxante ñu déggoo dara génn ñuy dox na taxaw na. nangam sangam waaye nag balaa leer. dañuy dem au niveau du CNG. CNG nga xam ne ñoom ñooy réew làmb ji. bu ñu demee nag manager bi teew ñaari manager mbër yi. ku nekk signé. ña yore wàllum signé ci CNCR signé promoteur bi signé muy lu officiel. Mhm. mu leer ne que nag. Mhm. léegi moom combat ba moom saa yee jeex na date bi la ñu jàpp. Mhm. kon datu Eumeu Sène lak la 4 avril la incha allah. incha allah yàlla nañ ci yàlla yóbbu ci jàmm Babacar mu mel ni ci diggante boobu ba tey ji am na leneen loo ci waajal tamit wala leneen loo ñu ciy wax. waaw li ma ciy waajal mooy fas ci yéene liggéey rek parce que Babacar Babacar waa làmb ji la. yaa ngi dégg. liñ ci bëgg a def nag ah du jaar sax ñu koy wax mm. dañu ko bëgg a def rek suñ ko defee incha allahu bu buñ ko dégtalee téléspectateurs yi ñoom buñ ci tegee bët dinañ xam ne ñun tamit ah liggéey nañ ci làmb ji jàpp nañ ci mm. et puis tamit noonu la ñuy def ak promoteur yëpp parce que Vox Arena wala Equivox daf fi nekk lenk benn label wala benn groupe de presse boo xam ne ne daf mm. nekk pour Sénégal yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp kon defe naa fu mu ci mën a doon rek lu moo mooy mën doon bu ñëwee danañ ci taqrib comme niñ koy waxee si liñ ci war a liggéey teg ko ci teggin tamit parce que loolu mooy suñu slogan ñun amin yàlla nañ ci yàlla yóbbu en tout cas ci jàmm mu doon nag suñu dernier élément bu constitué bu woon tey ji euh, page sport kiiwu làmb bu bu le record mhm. ma di ci jaajëfal seulement suñu cadreur bi di ko Gomis ah, mhm. di ko jaajëfal bu baax a baax a baax Babacar looy tàggatoo. mais ah, ngi fa. sa xarit yi ñu ngi ci jàmm. am naa ay xarit kay. ñan ñan say xarit. am naa fa ay Pape Sarr. am naa fa sama goro waaw. Pape Sarr sama xarit rek nga jëm ci Pape Sarr. waaw waaw mooy sama premier xarit. am naa fa goro tamit waaw Abdou. goro da am jëkkër. déet. goro la dafa am ku ma ko waroon may moo tax mu doon sama goro. Ah, ñooñu sa ñooñu ñooy say mbokk yi. am dafa am ku ma ko bëgg a may daal. moo tax mu doon sama goro waaw. ok sama bu baax. macha allah am na solo kon man tam maa ngi nuyu waa mi dinaa di nuyu ñoom Pape Sarr sa goro yooyu. ah di nuyu tamit man waa dakaar Plateau fi ma dëkk rawatina sama soxna yi nga xam ne ñoom laa dëkkal macha allah mel sama ay soxna ay grand frère lañ Kumba Thiaw du ma ko fàtte mm. ak wuy jëm siga mm. wala boog ki mu bokkal borom kër. Mhm. maa ngi koy nuyu di nuyu Awa Ndiaye ak Mame Diar. Mhm. bisu ñoom ñëpp maa ngi di nuy di nuyu tamit Assou Faye mhm. ah ak euh, ki mu bokkal borom kër muy Fatou Nying. ah ñoom barangom di seen borom kër di sama doomu nijaay. di nuyu Moussa tamit ak Sérém Roq di nuyu tey sama waa kër nijaay yëpp maa ngi leen di nuyu waa Mbomboy. nuyu nañ leen yéen ñëpp mais yow tamit di wax ne rek comme ni ngay wax rek maa ngi yow moom. daa mel ni tout temps dañuy gisee rek. parce que fi ma génn nii ci couleur. ak fi ma fekk si. xoolal rek tey détoy ah. ñu ko de. kon seen say mbokki yi mbokki Oulimata daal bu ñëwoo <laughs> waaw. waaw macha allah xam nga daa bëri bagage. <laughs> ba ëllëg incha allah ci beneen journal de l'arène.